soo bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. kii la. ndax Mara moomu ngay wax keroog bi yàlla defee muy dox Naara lépp dafa jël teg ko ci sama loxo. xaalis ba man la ko jox gure gi man la ko jox man lan maa dem ñaani man lan may mbir mi nag sama mbir la ki la jàpp xaw ma kan waaye moom dootu jàpp guddi guddi ci moom laa jëm parce que c'est rare sax nit taxaw ne man ah man je suis villageois parce que am na complexe wax loolu mais tey ku la gis nii sa taaraay sa moolaay sa jekkaay xam ne dëkk àll yi ñu ngi def effet. lippi soo góobee daal di lippi nga déqi déqi gerte daal di naaf bàcc ah. roñ ngooñ bu dee saalum saalum ya ca kaw nag dañuy jëri ñaari jëri dañuy jëri tàggale gerte gi ak ngooñ delsiwaat naa nag euh, pour waxaat si cofeel googu nga xam ne ñëwoon naa fi waxoon la ko dafa mel ne daf ma gën a sonal keroog bi ma fi jógee dellu sama kër ba fii may waxee ak yow nii tembe jógu benn yoon ci sama xel. Sangoguma TV Sangoguma TV Sangoguma TV la scène qui vous ressemble et vous rassemble.